Lumai, lumai ada injal. Wajar ya, ini wajar. Ini. Sunna ma'akum, sunna ma'akum. Sunna ma'akum. Sunna ma'akum. terewul terewul ñu ma bëri waaye nag Abdourahmane donc mu maanaam léegi nii woo delivery. aɗa waɗi kefageni gelli sunna dunkoña min jama wa sunna donc yafagani fo alhamdulillah tigel ngal laɗa tongugue a lamdemana dimmantu inshallah wala alla gano dema rek alla ras rek inshallah inshallah amma action ki apu tu puja buru ko jas ke reporter kan ke ko rek inshallah me ka argument du mari yakon diko do ko be ni tek tay mo do ta ta mo ko mi ko ko maya ko ni yakane rek nam ci tebe gay ko ko ni gay tay ko ko tay ko mo do mo ko ni ko ko ni ko ni ko inshallah rabbi ko audience ri tan ko encore tan gari inshallah voilà mais kadi haqi jan salgelinke a sururi yahe teggay amtani birelama idan jomagu ma ay kota ku yanni ku soronay pro prof sim dema waɗ kawannaɗe siran sireaa allah kawanni allah ti farenci kiyane amma ya kiyaɓe adi dinanna o walla kemnaga Sirena mak tempo mais an dangitan quoi ngat ko ko may sax mais an Allah kala yakun Allah kala kon tuwa ganti ngala ke ko an kacca jodi non aw eh ibo amo rangil ke warmo Allah bila kun toro ga ko Allah Allah ma dama prof dindi ma

ci kaw bidaa ci suuf bidaa ci suuf bidaa ci suuf bidaa ci suuf bidaa ci suuf sunna ci kaw sunna ci kaw sunna ci kaw